waaw man damaa jàpp ne que sëñ bi. ci ñi war a ñu war a gën a wax ci la bokk. ba mën a ñi war a wax ndax sëñ bi. maa maa leen maa ci wax laa dëkk nii. ndeysaan. maa leen la wax ndax fi ñu doon ndax fi ñu doon li ngeen xam nga ci war a wax. ni ngeen di ki war a wax. Hmm. Hmm. mooy yu xewe yu yu yu yu salte yii. di hmm. àdduna. lañ naan sëñ bi na ci wax loolu ci yoonu sëñ bi. sëñ Tuubaa jàngal nu nax ju. ñu xam ne ci biir nax ju lépp. ah lu ñu wutati yi mu jàngal nu. ah c' est zamanu zamanu li zaman samanu sukkootu hmm. wa samanu lu soomi leen bu yooti hmm. loolu sëñ bi jàngal jamono noppi la ak sax seen ne hmm. ba mu koy wax maanaam yëf yi àdduna yee tax waaye lu baax de man de xam naa li li ne toogu toogu dama ci rajo ndax lu ne ñaar fukki at lu ngeen bëgg mi ngi mi ngi mi lépp lépp waxoon naa ko rek waaw ndax sëñ Tuubaa a ndax jàng te téeréem laa doon jàng loo def it waxuma ko rek dangaa dem ci Thierno Ndaw wala nga dem ci bandi yi waaw boo demee loo loo may laaj loo may question nga ne Talla Fall ñoo mën a dàq wala question na foofu te boobu ko sax dañ doon nañ nañ seet nañ seet Baye Fall bu ndax wax na dëgg dafa am benn bis mu am ku may ku may laaj rajo daal ma ah ndekk Baye Fall dana njàng ah. ma ko lim ma mu ni teg ma ne ko yow xamoo lim ma dong <laughs> ah di ma yow kay yaa jàng li ma dong xamoo ko ngir lan xamoo ko jalaan naan ma lu tax jàng man sëñ jàngal ma saa bàyyi jàngal ma alxuraan jox ma sëñ Cheikh Mbacke ma téléphone tasawudu saxaar ci daara dé bi di jàng te ba fii ne maa ngi jàng te boo noonu doon dëkkalee ku ma bi téere doo doo ko gis waaw kon nag kon tax mu tax waaw waaw fi si jamono ci tool bi li ma def rek dañ samay tool ak samay téere képp déggoo kenn déggoo déggoo déggoo ñu def am ci man benn. déedéet waaye damay jékki-jékki ba mu yàgg ñu gis loo xamante ne bii léeg-léeg sëñ bi sax dina am parce que ni muy demee la ci jamono. déedéet loolu lépp loolu ak fiir la rek benn nga lu saytaane donc noonu ñoo koy xaar bu waxee rek ñu ñu wax lu bon pour ba xaw na na jël li bàyyi maama waxoon mm-hmm. ba xaw ni jawaabu fi sukkoon. Mm-hmm. Mm-hmm. bu wax ne xaalis noppi noppi wulus. suñ tubaab ñu ko jàngal ci naaju. kon nopp ma waaw suñ tubaab yi ko jàngal am na ko xaw ma ko jëlewum fenn fu dul suñ tubaab yi waaw bu wax dee xaalis daal nee na noppi wut. ok. foofu